waaw waaw kan moo ñëw lii waaye kan moo ñëw lii waay kan moo ñëw lii waay kii kan moo ko ñëw moo nekk Mohamed Signane Kayaky Mohamed Signane moo ñëw lii waaw waaw ndeysaan waaw waaw waaw xoolal si góos bi waaw waaw

waay waay Samba loxo waay loxo ni ngay doon neex na ma neex waaw waaw waaye mos ngeen a gis lii waay des ñu dem waaw xale bi moo jong ma xale bi moo jong ma waaw gis nga tey baas bi bi waaw waaw il faut nga il bi bu baax gis nga ah, xale bi xale bi bu baax yaa ngi dégg yaa ngi dégg volant bi monté ci taybaas bi en même temps moom la monté ci maas bi nii kii la ñuy wax volant vague moom la monté ci taybaas bi dagal ko taay soutien même bu amul soutien mun tay mënti dem il nga xam genre liggéey bii. damay bi dafay wàcc. yooyu mhm. ñu demee ne bii du dem foofu lay yem. boo ko xale xasee sol. doo wakkatu. doo wakkatu. bo bo ku teñ di ko sol. ku teñ di ko sol. gis nga taybaas gis nga sëb bi nu mel nii mu taasal taybaas bi. waaw ko taasal. mais moom dañ ko liggéey taybaas bi leen liggéey nii ah, taybaas bi leen kub comme nii liggéey ko comme nii. Ah, gis nga boo gisee da nga yaakaar dañ ko montal ay flèche. wala dañ ko montal train montal luñ ko train. borom dafa mu. lii je pense que fàtte ngeen ko tuddee la su fa dara nekkutoon. waaw lay nekk mais da koo dugalal pan. panal lii mooy pana panal lu ko dugalal nii ah, yaa ngi dégg su fekkoon panal bi nekk ko fi boroom du dem da koy sol taxaw te day te day défilé xel la liggéey fii kii li mu liggéey dafa travail dafa liggéey ba sonn waaw dafa liggéey ba la ni ko kii nii la ko def waaw deux la ko def uh-huh. gis nga fii rek rectangle la mu carré fii def monte deux boutons yi tey waa su wàcc mu monte deux yi bu carré monte deux boutons yi c'est très facile yaa ngi dégg liggéey bi set na rafet na. waaw yére bi. Mhm. ko war di sol. amul été amul été kii ko sol bu nekk. moment nekk. mën nga ko sol moment bu nekk. mais zipi moom ko sol moment bu nekk. Ah, na moom. ah waaw xanaa ah, xanaa xooloo xanaa xooloo xale bi. mu ne comme ku ñu kii fi mu toll nii. waaw kii fi mu toll nii. bu la fekkoon ci biir nga xam. ci biir. waaw. ah am waaw. kon waa li tax est-ce que ku ñëwal ni kaar la dëkk. kaar la kaar la dëkk. attends kaar la dëkk xale la. xam nga kañ la am jawaar sama amee jawaar moo may ñëwal. ah bon. waaw sama amee jawaar moo may ñëwal. aywa de muy kaaran de. muy kaar en tout cas am na yeneen nekk ci biir. waaw waaw. waaw waaw. ndeysaan. leen loolu waay xoolal ma xale bi ni mu jongo ma xoolal ma xale bi ni mu jongo ma waay waaw waaw ni ngay doxee waaw waaw e loxo waay loxo loxo loxo loxo waaw waaw loxo ah waaw waaw ndeysaan ndeysaan waaw bu monte ci pegg bi waaw gis nga ko lii la ñuy wax jaabu jóob waaw jël jaabu jóob ci karo gi gis nga ko jaabu jóob jaabu jóob jaabu jóob jaabu jóob maasu jaabu jóob la ah, ndeysaan waaw gisoo waaw maa su jaabu Jóob la. waaw sànni ko la ko. waaw ba pare ci kanam ñu def ko dans Joola. waaw dans Joola. dans Joola lañ def kanam bi te sànni. kii yooyu ba ñu Joola. Joola ko ay bouton. décorer ko décorer ko ay bouton. ba pare mu ji perle ko. waaw déggal loolu. bi. ndeysaan France ko ci kaw taywaas yi ba pare ko. dégg nga. tis xoolal gis nga décolleté ci gannaaw. bul joxe gannaaw ci la ñuy wax décolleté ndeysaan waaw ñu dugg surtout bu ñu dugaloon ko ay flèches ndeysaan quatre lañ ko dugal ba pare flèches voilà voilà ko ay bouton ba pare jàpp ko pour mu nekk ay béjjën c'est ko flèche bi continué mm-hmm. gis nga fi mu fii rek lañ may opportunité pour mu dem ça ko créé Kaarang waaw génnul fenn fii ko créé su la joxee gannaaw nga gis si gannaaw su la joxee gannaaw nga xool ci gannaaw ndeysaan la jox gannaaw nga xool xoolal xale bi lañ créé ci gannaaw gis na ni ñu ko pante. ah gis nga fante bi gis nga fante bi nii lii la la. gis nga dañ ko fante ko rek. waaw ubbi bi ak vrai gisoo ni ñu ko daggee. mais mais mais na de. Aliou Ndiaye moo créé lii. mais Aliou Ndiaye ay na ko fan. waaw daa ci la Aliou Ndiaye waay. xale yi xale yi ñu mën a xale yi mun nañ ñëw mun nañ ñëw trop mun nañ créer trop wax dëgg yàlla ndeysaan boo xoolee li boo xoolee li ñuy liggéey da xam ne lii dafa nekk en liggéey bi borom borom borom jël na ci temps Yacine Faye Yacine mooy liggéey lii kon kaarañ am a tout près ah. mu nii mu nii ci kaw garage bi Yacine Faye mooy liggéey lii ndeysaan ci liggéey rek waaw ndeysaan ñëwal Kaarang ñëwal Kaarang soo bëggee ñëwlu ñëwal Kaarang ñëwal Kaarang soo bëggee programme yi neex ñëwal Kaarang Kaarang gaa yaa ngi waa Kaarang waaw tàcc leen waa Kaarang waay tàcc leen waa Kaarang waay ma jàpp ah, leen ah Evas rafet na trop boo gisee liggéey bi kii carrément liggéey bi jël na ci temps ngir yàlla client yi nañu fay xale yi xaalis pour ñu ñëwal leen waaw xool ma ndeysaan solo de neex na ma ni di neex na ma na ma Dj Lo Dj Lo Dj Lo men si di def nga jàng ma yow sëñ nu mu demee nii ba gars yi ci biir la. mais si biir nga nekkoon. ñu ngi ah. nekk da ngaa naaw rek ñëw si suuf. waa xale bi lu ñu sol décortiqué ma gën a xool. waaw tey waas la sol marché bi la ñuy wax njugub. njugub njugub. foo fekk day jóg. njugub waaw mbagg ya day jóg foo mu fekk mbagg yi du tëb. ndeysaan ndeysaan du tëb bokkatul. lan moo la ñoom téere ngeen ay. marché bi Pulikoro la. dégg ma. Pulikoro. Pulikoro. marché bi euh, tey volant bi ndeysaan ndeysaan waaw waaw. ndeysaan tey bi nii France ko nii ak euh, tissu bi. wallaay tallaay mais seen i yaa ay flèche la ko dugaloon jëpp droite la ko. waaw mais daf ko dugaloon ay flèche. waaw pour mu mën a dem. waaw waaw loolu moo tax mu def ko noonu. joxal ma gannaaw gi ma xool. jox ma gannaaw gi xale bi décolleté bi esaan. Eh, yow nag sa gi loo koy bañ xool li ko gannaaw gi xool nag. xoolal ma gannaaw gi defaral ma cité bi nii rek le photographe et le sant ah. ko ci gannaaw dugaloon ko doo flèche ci gannaaw. waaw ba pare sant ko waaw. ba pare tegal ko benn épaulette. gis nga épaulette. gis nga. gis nga fii bu ñu ko tegal lii. waaw xam nga fan lay nekk. déedéet. boo xoolee ci ñawi tubaab bi. na ni. ah boo xoolee ci ñawi tubaab bi. na fi ko tegal lii. waaw boo xoolee ci ñawi tubaab bi épaulette la tëdd. waaw. ci fii lay nekk ci épaulette lay nekk. ok. moom la boobu oh. créé def dëgg la ci gannaaw. mën naa bëgg waa Kaarang. waaw mën naa bëgg waa Kaarang. <coughs> mais li am na solo ah mais kii kenn damaa xaw a perte toom mais kii aay na ah. Ibrahima Gueye. Ibrahima Gueye. Ibrahima Gueye. Ibrahima Gueye tàcc ñu ma ko s'il vous plaît. DJ accompagné mu ko ak benn son mu dox ndànk génn ñu xool ko. mais. waaw way sama a bu jàpp na la yow yow a rob jàpp na la yow Soy tu Cristo, tu mamá. sa xol ndax dama am tas baby mami yo mami yo ande ci ma mami amaram ko boole yo ci ma ande ci dina la wan fi ma mari di tollu ni manake jekk ni jekk di dabu ni diriam mu solu ni juma jekk defuma tase sa shawala Fama ma ñëwoon Fama Fama sur scène waaw waaw ay waay Samba xale bi su reere dafay dee non dafa rafet ñëw bi dafa rafet macha allah dafa rafet waaw dañuy taxaw après ñu ñëw ñu kii ko waaw waaw waaw e ñoo ñoo ñoo la en direct Baba ñoo la en simon ñoo simon ñoo simon Baba waaw bu ma sa kii xam nga nu mu tudd seeni waaw kee di ñëw Bella Bella dama woon Bella Bella waaw waaw call

Boy, manifest, let me just. Hey, boy! Hey, boy! Hey, boy, Zamba! Wow, wow! waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw DJ merci beaucoup DJ macha allah. bilaay. non Bella day xaar Bella ñëw. waaw. waa lii moo rafet waay macha allah xool ma Bella nu muy doxee xool ma Bella nu mu jongo waa Bella yaa ay monsieur Ibrahima Diop gis nañ ne jeune nga xale nga ngay def partout dans le monde rawatina fii ci Kaaxal bi nga xamante ni premier jour tey jeune tailleur ñëw sa kër nan leen parane bés bi loo yëg waaw asalaamaaleykum DJ maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci sa talent ak taxaw bi nga taxaw ci nuit des taille-basse organisée par les jeunes tailleurs de Karang tey bi ma yëgee bi ma amee parrainage bi dama ci yëg mbégte ak contentement parce que wax naa ko il ne peut pas avoir de développement sans la jeunesse. kon tey soo xoolee ñun suñ mouvement bi dont je suis le coordonnateur nga xool ne ay ndaw rek a ci nekk ñu bokk gis-gis bokk gëm-gëm ànd ci du ko doxal kon su ma gisee nuit des tailleurs bi tey organisé par les jeunes talents de Karang dama ciy am kontaan ak mbégte te ànd ci ak ñoom te def naa ko ñëw naa ci ànd naa ci ak samay nit taxawu nañ ma ci jàll na ci jàmm ñu ngi ciy sant yàlla. d' bu ñu ñëwee gis li nga xamante ni moo nekk programme bi monsieur Ibrahima Diop. tey nga dugg si tey si programme bi doomi Kaaxañ kese nekk fii na lan nga yëg sa xol ak ban mbëgte ak contentement nga am tey lan la ñu man a wax si loolu. waaw di jaamaar. ko duma ci def lu dul yëg sama bopp ci mbégte ak contentement parce que nit da ngay xàmmee liñ la boole loo doowul dara ak li nga bokk lii dañ cee bokk. Hmm. te man soo gisee li ma la wax rek kaarang acte de développement yi ñu ci posé bëri na tey boo xoolee ay ndaw yi ñu nekk suñ ginnaaw ñëpp ay ndaw lañ ñu ànd bokk vision ne ñun dañuy duñ xaar lan la ñu kaarang war a jox mais lan la ñu war a jox kaarang parce que dëkk boo fa juddoo yaroo fa jàngee fa dem yàlla dénk la teraanga mu néew mu bëri da nga war a ñëw bokk koog waa dëkk bi te man gëm-gëm boobu laa am tey bi ma ñëwee fii je pense que j'ai posé des actes de développement ak ñi nga xam ne ni moom laay àndal mooy ñu xool fi nga xam ne nii assainissement la ñu dugal ci suñu loxo li nga xam ne nii ay jàkkale yu ñuy tabax wala ay jumaan ñu dugal fa suñuy doole lépp lu nga xam ne nii li ci mel ni ay investissement la ci jeunesse bi ñu def ci suñ loxo parce que tey fii dafa am lu ma siy fàttaliku taxawoon naa fi di encourager les meilleurs en nangale jox leen ay ordinateur portable tey li ci sama yaram gën a daw dama dem ci benn kon di réunion xale benn élève ne ma daaw ordinateur portable bi nga joxoon meilleur élève bi moo tax ma bëgg a am ren moyenne 17 pour jël ko mu nekk li nga xam ne moom laa mbébétoon ma gis ko kon tey su ma gisee jeunesse bu mel nii comme laa comme association des jeunes talents ñu organiser lu mel nii dama ciy def sama dooleek sama ñàkk ak lu mu am yëpp def ko ci moo tax ma amaat mbégte ak contentement ci lii. ok merci beaucoup monsieur Ibrahima Diop xam naa ne sama dernière question est la suivante. ma dégg ñu naan mouvement jàppal ma jàpp jàppal ma jàpp est-ce que mën nga wax tuuti ci mouvement jàppal ma le mouvement jàppal ma jàpp Kaarang ca kanam pour l'émergence kooku dafa am lu mu tekki rek li mu tekki mooy lii tailleur yi def tey si laa koy tënk mooy ñun ñëpp xam nañ ni ñun ñi fi nekk ay jeunes Kaarang lañ ñu taxawoo nekk benn woote ne ñun gis nañ ne Kaarang lañ bokk Kaarang lañ juddoo suñu lépp Kaarang la am mu munuñ am lu ëpp Kaarang ñu ne nañ formé wu autour de l' essentiel nekk benn bloc fépp foo xam ne ni koñ la ci kaarang DJ Ama je te prends en témoin je fais face à des caméras nit looy wax day fekk mu leer caméra laa jàkkaarloo te international kon lépp loo xam ne nii kaarang la muy lu nekk ci koñ yi nekk ci ay jafe-jafe yu ñu mun a def suñ suñ suñ suñ doole ñu ngi ko ciy def nee naa la tey jii si ngoon rek dañ jógee ci benn jàkk bu nekk fële ci kaw amul courant ñu dem fa installé fa courant indi fa ay ventilo def fa lépp pour nit ñi di ci jëriñoo am na école yoo xam ne nii ñu ngi fii comme ay école arabe dañ ciy jël def ci suñu doole réfectionné ko peinture ko yóbbu fa suñuy rakk ñu fay jàngee am na ay yoon yoo xam ne nii tey accident yi bëri nañ fa ñu jël suñ doole def fa ay duudaan am na ay koñ yu fi am mbalit ñu jël suñu initiative jël ay oto léeku ñu dindi mbalit mi mu joge fa am na ay xale yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu jël suñuy xaalis ci sutura jàppale leen ko ne nañ leen jàng parce que seen jàng du yegg si ba fii du yàqoo si ñun di primer muy si xale yu ndaw yi di leen yor inscription à la sixième ba à la terminale ak fourniture jàpp naa ne loolu lépp loo xam ne nii ñu ngi koy defee bu ko ñeneen doo defoon kaarang dina ala daw me te loolu nekkul lu dul ñun dañ wékku ci président de la république monsieur Macky Sall mu am vision vision boobu wàccee ko ci monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly mu transformer vision boobu en action muy koo xam ne nii ñëpp gis nañ ko ci wàll culture lu mu ciy liggéey action yooyu le le ministre de la culture di transformer des visions de la du président de la république moom la ñuy jël ñun waa mouvement jàppal ma jàpp ñun ay ndawi APR di ko transformer en plan d'action et voilà les résultat escomptés de ces plan d'action yoo xam ne def nañ ko dëkk bi gis nañ ko xam ne nit ñi duñ ay caaxaankat ñii ñu dëggu lañ ñu ngi def loo xam ne moom la dëkk bi soxla ñu koy def di ci woo ñëpp moo tax ma ne la mouvement jàppal ma jàpp loolu lay tekki. d'accord monsieur Ibrahima Diop euh, dernière question lan moo sa waaw sama secret mooy dëkk ci dëkk bi juddoo fi jàngee fi dem ci kaw yàlla def suñuy lijaasa ñu dënk ñu ay ndomba tànk yoo xam ne nii lañu ci yàlla dënk ñu ne ñun duñ dem bokkuñ ci ay jeunes yoo xam ne dañuy dem jàngi yàlla dénk leen teraanga ñu dem ay pareeki Europe ak fu nekk di ñëw ñun dañuy jël loolu yàlla dénk ñu ñu delloo ci waat ko askan wi nga xam ne ni tey lépp luñ am ñoom ñoo tax ñu ne nañ ko delloo ci waat ci askan bi ma ànd seeg ñu gore mu nekk ay jeunes yoo xam ne ñun ñëpp dañuy toog dama lay wax DJ Amar dañuy toog taxaw ñu toog soulever ñu benn question nañu koñ bële ñu nekk amul teen ndox mi yeggu fa ñëpp xam nañ ne problème kaarang am na problème ndox ñun ñëpp ñu dajee waxtaan ne nan la ñuy def ba fële ndox am fa ñu toog waxtaanee ñi naan nañ njëkkee li nañ def lii di ci joxante ay xalaat ba trouver ci solution jël suñuy moyens mu néew mu bëri investir ko fa ba loolu juddu tey parce que tey booy dox kaarang ñuy romb ay jumaa ak ay jàkk yoo xam ne dugal nañ fa suñu doole romb ay école yoo xam ne def nañ ci dara ba gis ci dara day nekk mbégte ci ñun parce que nit boo nekkee ci gox danga nga a def loo xam ne ëllëg buñ la laajee nga ne lii laa fi def mais d'accord ma ci taxaw naan lii laa bëgg waa Kaarang jox ma pour ma defal leen lii loolu d'accord ma ci li ma gëm mooy dañuy defal waa Kaarang ba lu ñuy ci fekk si ñu xam ne fekk si nañu loolu la ñuy prôné loolu la ñuy dox ci la ñuy dugg moo tax buñ gisee ku yow it jeune talent bu nekk de localité mel ni yow di promouvoir lii tey loolu c'est un boo xam ne fondamental pour nu dañ war a saisir la balle au rebond moo tax yow it maa ngi lay féliciter di xam ne yow déjà sax man dama bëgg nga ñëw dugg ma mouvement jàppal ma jàpp parce que tu as l'esprit créateur te da am loo xam ne ni sa talent la yaa ngi koy jaay ba tey ñëpp xam nañ ne Ndakaaru xat na nga jógee fii buuxante ba bokk ci ñi nga xam ne da ngay bind ay émission muy jàll je t'en félicite di si ñaanal yàlla nga am ci lu kaw sa njort. ok merci beaucoup monsieur Ibrahima Diop votre mot de la fin. ak remercier les membres infatigables de jàppal ma jàpp DJ Amar damay toog man kese wéet ma ne lépp lu ñu di def lu baax na ko yokk parce que boo xoolee ñii kaar ak ñun xamante nañ kaar ñun ñëpp xamante nañ mais boo xoolee ñii ànd ak man koo ci laaj c'est des personnes d'éthique am fulla am fayda kenn xamul caaxaan mhm. ñu ñu dëggu ñoo xam ne duñ ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuñ la te dama koy wax toujours gis nga di jaamaar ku jaay ker ba guddi jot bu yeboo lalli te xam ne da ngay lambale te ñii dama leen di sant di leen gërëm parce que dañ ànd ak man ànd nawle ànd ak man ànd fraternité ànd ak man ànd bokk ci dëkk bi mu nekk lépp loo xam ne nii dañ ciy dugg dañ ciy dax seen tànk tubéy benn action rek moom ma marqué balaa ñuy ñëw fii dañ ñëw ba ci yoon bi su ma benn xarit il weli ne ma am na ñoo xam ne nii tey buñ jogee ci koñ boobu gis nañ ne c'est des familles hmm. man dama bëgg ñu génnee li fi yor jënd ko ay saako ceeb yóbbu ko ci guddi bi si la kenn du ñu gis xam nga kuy xalaatee noonu ñuy ànd ak yow ànd dëgg la ñuy ànd ak yow hmm. kon ñu ngi tam maa ngi leen di remercier aw ma seen fay parce que nit buñ ne nit entourage ba la hmm. entourage boobu nag man lépp lu ma mën du man entourage bi moo koy déterminer maa ngi leen di sant sama sant ci ñoom am na fu commencé te amul fu mu yem parce que dañuy ànd ànd nawle amul lenn loo xam ne ni dañ koy denc lu xew dañuy wax ni lii ak lii même suñuy dóorante ñu ni neen suñ paree génn le bon sens et la chose la mieux partagée mm. wax bu dofee nopp ya koy dégloo war a wér mm-hmm. te kaarang dañ war a ubbi suñ bët xam ne li fi amoon ak li fi ne war nañoo xoolaat suñ bopp nit lépp looy def daaw ba ren di je amaar nga nekk ci kaarang fii di def animation daaw ba amoo ci euh, avancement mm. waaye war ngaa xoolaat sa bopp waaye boo fi nekkee def fi say preuve waa kon jël la jëf la ci rajo ba nga def fa say preuve wal fajiri jël la waaye yal naa la yëg dégg ci seen internationale bi man loolu laa gëm mm-hmm. te ñii loolu la ñuy prôné mm-hmm. moo tax ànd bi ñuy ànd damay ñaan yàlla musal ñu ci seytaane cat làmmeñ ak balaa mm-hmm. te xam ne ay ndaw lañ nañ ñu ñaanal nañ ñu ñaanal te xam ne lépp lu ñuy def dëkk bi moo tax ñu koy def laa amoon lu ma ciy wax mbokki internet yi am nañ mbégte ak contentement bu baax a baax ànd ak yéen la nuit du tay base par les jeunes de Kaxang waaye ki nga xamante ni moo nekk monsieur Ibrahima Diop mu nekk le parrain vraiment am naa mbégte ak contentement bu baax a baax tey ànd ak moom Sénégal wërngal képp États-Unis Europe France Océanie Asie yéen ñëpp ñu seeral nga xamante moo nekk mbokki internet yi ñu leen baax bu baax a baax mbokki diaspora bi bëgg naa seen bu baax a la télévision sa heureuse année 2018 jërë ngeen jëf